yooyu noonu gis naa ko sax mu man man man du tontu ci yooyu. Mhm. waaw parce que ma mag loolu quoi. mais man yàgg naa demal artiste invité wu ma. man yàgg naa demal artiste mu toog invité artiste yëpp ma gis ne artiste la mhm. ma dem dooleel la te invité woo ma. Mhm. donc am na ci yoo xam ne duma ci tontu parce que mag da ngay nekk mag. donc wala nga nekk xale quoi man du ma attardé wu ci détail yooyu mais li may wax ku ko seetaan di nga xam yàgg naa demal nit. te yëkkatiwul téléphone am woo ma que mu nekk naqar que mu nekk bànneex damay yëg ni lii sama wareef la ah kii de géejuwaay la dëkk lii sama wareef la mu dem wala nga nekk ci naqar wala nga feebar wala dara ma yëg ni diw dafa feebar te te te ah feebar mu bokkut ak dara même bu ñu ma ko waxul ma yëg ko ma taal sama oto fekk si la ba fi nga dëkk ñëw toog nga ne ay diw ah man de kontaan man la sama wareef laa def yow waroo feebar may toog sama kër wala nga am xew may toog sama kër ak lu mu munti nekk soir rek lu mu ti nekk yàgg naa wuy ji nit te woowu ma donc bu fekkee tey ji am na ñu ko gisee noonu seen seen seen seen état d'esprit la ñu waxee rek te loolu tamit kenn mënu ci dara quoi nañu ñëw sans pour autant bu ñu ko déggee rek ñu parce que dama interview yëpp damay bañ lim parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ne dafa waa dafa métti pour communiquer ah da ngay toog di communiquer sax mais da ngay da ngay da wu quoi da ngay dafa métti communiquer parce que boo wax boo tuddoon ñii tey ñii mere la boo tuddoon ñii ñii ne gis nga de daf ma mere mais je préfère bien ma képp kuy artiste di suma nawle invité naa la ci bis bi même boo ñëwut même boo ñëwut boo nekkee Europe wala nga nekk foo munti nekk di nga xam ne ah mu ngi mel ne ma ne képp kuy presse nekk ci Sénégal invité naa la mais jarul may tudd Sénégal wala kii mais bu ma ne presse comprendre nga nga xam nga tey ji man bu ma ne presse bi yëpp mm-hmm. lan moo tax yéen saa artistes yi bu ñu ne presse yëpp yow nga gis ci sa bopp parce que ci presque bi nga bokk ah, mais il faut dañoo solidaire merci beaucoup mais léegi il nga taxaw lim ñëpp te man yàgg nañ toog ne invité naa ñëpp invité nañ artistes yëpp ma jug man dem mais parfois ak gars yi doo comprendre te doo xam tamit lii ñuy def lan lañ ci jublu mhm. da ngay gis ku génn def xama wala nit woola ne la gis nga li di wax mais man duma déglu loolu xalelaa maa ngi ci sama yoon maa ngi ci sama diggu carrière damay concentré wu ci sama carrière ma bàyyi ñiy wax ñi wax man ma continuer sama liggéey